Euh, ñu dañuy taxaw sur le cas Amadou Ba euh, ñoom ñooñu c'est détracteurs au sein de l'alliance de la pour la République euh, parce que alliance APR e lañ nekk ñoom dañ naan Amadou bu faloo day war day war Macky Sall Amadou Ba dafa commencé bëgg mettre la main sur sur sur le sur sur le sur le parti dañu ñu wóoluwuñu Amadou Ba président dafa dafa def erreur ci wax yooyu ñuy wax lan nga ci mën a yee yàbbi non man xam nga li ma xalaat ci Amadou Ba yàgg naa la ko wax yaa ngi dégg man li ma dund ak Amadou Ba ak li ñuy waxtaan yépp te waxtaan nañu yàlla xam nañ nag waxtaan nañu man ak moom ay heure ki heure heure heure man mosuma wax lu jëm ci delluwaay te jëm ci Macky Sall mosuma koo wax yàlla rek a tax may wax mosuma toog dégg ko mu jëw makki Sall wala mu wax ci moom lu bon wala lu ñaaw yàlla rek a tax may wax euh, jour biñ ko gënee brimer génne ko dàq ko jël ay renseignement dina doon teg ko buntu këram di ko surveiller jour boobu la gën a dal ki ni muy waxee ci Macky Sall sincèrement euh, man book xam nga aussi àdduna moom ku ne rek li nga gis ngay seede xëy na aussi am nañu gis leneen <laughs> mais man li ma gis rek laa mën a seede mënuma wax ni Amadou Ba dafa déloyal ci Macky sàll wala kuy yàqal Macky sàll la wala kuy wor Macky sàll la mënuma wax loolu ndax gisuma loolu je suis désolé ñi koy wax xëy na am na ñoom yeneen raison yu ñu am lu tax ñu koy wax tu comprends mais mais attends euh, góor gi soxna si euh, man li ma comprendreul mooy euh, Macky sàll moom moom moo nommé Amadou Ba ministre des finance benn paa bu nekk mbar bu tudd Moustapha Jeg nee na ma xaalis moo ëpp solo ci àdduna xaalisu nguur gi Macky Sall moom moo ko jël dénk ko Amadou Ba lu ëpp ñetti at pare mu jox ko jox ko ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères mooy ki nga xam ne mooy sa baat boo génnee réew mi maanaam politique étrangère réew mi yépp nga xam ne ci président bi la jokk Amadou Ba moo ko doon doxal pare ñu tàqali ko Amadou Ba nekk attaque genn wàll ci biti Macky Sall woowaat ko nommé ko premier ministre taawu candidat jot ñépp ñëw présenté wu Macky Sall tànn Amadou Ba parce que moom lañ tànn loo woon mais mais mais <laughs> mais lan lan mooy problème au fait je dis bu fekkee ne Amadou Ba am na défaut yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp processus boobu yëpp Macky Sall gisu ko il a fallu ñu dem ba vingt quatre heures campagne électorale mu koy soo gis y a un problème y a un problème puis ni Amadou Ba comporté woo depuis bi Macky Sall reporté élection bi ba léegi moo lay mën a wan ni déloyauté bi ñuy wax ci Amadou Ba amul parce que Amadou Ba bi Macky Sall reporté élection yi la maire manière mu gagné mooy Macky Sall bi mu defee discours am le 3 février bu Amadou Ba xëyoon suba le 4 février démissionné 70 pour cent lay am euh, des voix au premier tour est-ce baax le ma la bu fekkoon ne Amadou Ba dafa déloyal bi Macky Sall waxee la 3 février dama la le 4 février moom bu defoon conférence de presse daan ni génn naa ci Macky Sall coalition damay dem ak kii d'accorduma ci li mu def tey ku mënu mën a dajeel day gagné premier tour à 70 pour cent mais deful loolu donc daal vraiment je pense que nit ñi war nañoo xoolaat bu baax Sénégal faw ñu bàyyi yàq faaw ñu bàyyi jaxase. parce que yàqeeg jaxase bi ñuy def bu fekkoon day yem ci palais bi d'accord mais répercussion yi muy am ci réew mi moo grave mais parce que xam nga parti au pouvoir non attends attends attends parti au pouvoir li tax mu grave lu tax parti au pouvoir li ciy xew grave c'est que li ciy xew day am jeexital ci réew mi tey élection bi ñu reporté tey li mu yàq ci image yu Sénégal ci àdduna bi kenn xamul nu mu toll li Macky Sall defaroon yépp ci image boppam lépp élection bi yàq na ko lekk report bi yàq na ko crédibilité internationale bi réew mi amoon maanaam signature réew mi ci wàllu koppar ak yépp lépp report élection bi yàq na ko tradition démocratique bi Sénégal am ñépp di ñu ko nawee foo waxee tubaab yi ñépp àdduna bépp foo waxee ñu la Sénégal rek moo bokk ci démocratie nga xam ne ñoo nekk ci Afrique yoo xam ne kenn mënu cee yàq dara lépp report bi xajamal na ko ndax lan parce que ana nit ñoo xam ne nii seeni i yu bopp ñoo tax ñu nekk ci biir bi jaxase bi yàq di ruuma daat ba yëf yi yàqu donc il faut ñu xam ni boo nekkee au pouvoir nekk parti au pouvoir li ngay def ci sa biir parti dafay am jeexital dafa am lu muy yàq ci réew mi am lu muy yàq ci république bi am lu muy yàq ci démocratie bi am lu muy yàq ci diplomatie bi am lu muy yàq ci koom-koomu réew mi loolu ñuy wër président de il faut ñu doxaale ko parce que il y va de l'intérêt du Sénégal